da koy revendiquer mais depuis lors on vous sent plus ci terrain politique bi. Ah, sànni nga fi nag sa benn bombe parce que yow bokk nga ci njëkk a promouvoir li ñu naan la troisième candidature. mais bien sûr j'avais demandé à ce que je le supplie de le faire parce que moom moo fi def créer PSE faut dire les choses toujours terre à d'accord moo fi créer PSE ak ce PSE ñi des ñëpp ils sont contre le PSE ñëpp. waaw kooku ñu leb ci xaalis def ci ay keneen bu ñu toogee ba xëy na mu PSE keneen ñëw na taxawal na PSE fu mu jëlee xaalis moom da koy lebbiwaat booleeg li ñu jox jot mais est-ce que collaborateur DG. Mm. très rapidement. Mm-hmm. est-ce que yow mi nga xamante ne yaay doomu ndeyam. Mm. siq lu moom lu bëri. Mm. est-ce que waroo ko peut-être fàttali li nga xamante ne promesse na mu defoon en 2019. mooy bind ko aussi ci livre am que c'était son dernier mandat. mais non mais yéen Macky Sall c'est un scientifique c'est un ingénieur pour lui la science est provisoire c'est quelque chose boo xam ne c'est dans son sa conviction et puis d'ailleurs yow muy keneen nga baal ma du yow la yoo xam ne des yëpp kenn du fi solaat tubayu trois euh, trois ans parce que yaa jaa Dieu a dit xaalu xalaqnaakum atwaaran je vous ai transformé je vous ai je vous ai créé par transformation successive donc le contexte peut te faire dire une chose un autre contexte peut te faire autre chose et Dieu nous l'a demandé nous l'a monté dans sa pédagogie. d'accord je vais te dire you know des na dans sa pédagogie. Mhm. Dieu fan lañ jukkoon wax mooy mooy mooy xibla. du beex Beytul Maqdis Beytul Maqdis. Jérusalem après lañ ko changé. dem ci Kaaba gi ku ko changé yàlla. Euh, Seydina Mohamed moo ko. jaajëf Seydina Mohamed moo ko changé. ko yàlla moo ko wax mu deddu fii fii la léegi. waaw fii la woon. fii la léegi. d'accord waaw lu ngeen koy wax est-ce que kooku mën ngeen ko dindi. yàlla moo ñu ko jàngal c'est parce que wala yàlla dafa jóg. maintenant vous êtes très proche du chef de l'État. il est dans le clair-obscur. peut-être peut yow xëy na du ñàkk muy waxtaan nag yow. il loo xam ne peut-être du ko wax ak kenn. il a une responsabilité. ci yan disposition la. président euh, il a une responsabilité. tey boo waxoon tey tey nii ñii damay nekk candidat ñëpp bàyyi kii wuti wuti wuti kii def bàyyi liggéey bi. mais dafa nar a moom il est il est comme il l'a dit il est nommé jusqu'au 2 euh, février 2024 deux deux mille vingt quatre on ne impose pas il ne dira président dafa nar a samp ndëndam. dafa war a samp ndëndam man dama koy. waxuma dafa war a samp man man man man. loolu laa bëgg moom lu mu wax lu mu jox ak yow. moom moom lu muy wax li mu li mu lay wax yëpp moom la ñuy wax ñëpp xaar leen bu jotee dinañ ko dégg. bu ngeen jotee da ngeen ko xam waxtaan na ci ak yow. man li ma ci xam man mooy. dafa war a samp ndëndëm. merci beaucoup keneen ku dul moom ku fi ñëw danañ la dóor. léegi nag pour que la l' inflation reste gis nga PSE bii na continuer moom moo ko mën a continuer keneen mën ko continuer.